abonné seen seen YouTube Partout yi dal leen ak jàmm yéen ñi ànd ak seen chaîne YouTube bi di Partout TV ñi ngi sàkku di leen ñaan ngeen woy di abonné tey laal zem bi foo leen toll ndax bokk na ci li nga xamante ni moo ñuy dooleel ngir saasu na ñi leen di mën a defal jàngatu bés baa ñi leen ndil ay xibaar mbokk yi tey dañ leen indil benn xibaar boo xamante ne nii mi ngi concerné kii di El Hadj Malick bi nga xamante ne nii moo yor wàllum communication di parti bi di PASTEF mbokk yi bu ngeen fàttalikoo El Hadj ay bés ci ginnaaw ñu ngi ko fi doon tuumaal ab audio boo xamante ne nii ña ngi doon woote fitna ak taxawaay ba ñu war a am ngir. amal xeex bi nga xamante ne nii moo war a door ci wàllum ndakaaru bi loolu amee ci la ko gendre gendarme euh, section de recherche bu Colobane tegoon loxo téye ko ay bés biñ ko téewee ginaaw ay bés si lañ ko defeere lii ca parquet ba waaye laata boobu rek am na benn waay bu nga xamante ne nii moom la ñuy wax moor kase jege woon président de la république mu dem ba seen diggante xaw a am ay réeroo moom ca la génnee ne moom audio boobu ñi nga xamante ne ni ñi ngi koy tuumal El Hadj Malick nekkul El Hadj Malick Ndiaye waaye moom moom di Mor Kase mooy ki nga xamante ne nii moo def audio bi ginnaaw loolu bañ ko defee rek ca parc ba ci la amee lii di liberté provisoire muy bàyyi bu nëganiku waaye mu mel ne procureur de la république moom càkkutéefam ak bëgg-bëggam yëpp mooy ñu teel ko kii di El Hadj Malick ci kaso bi na dafa defoon li nga xamante ne nii moom la ñuy woowee dafa interjeté woon appel maanaam dafa dugaloon appel ci décision bi nga xamante ne nii moom la juge bi jëloon ngir may El Hadj Malick ab bàyyib ko ci loolu ci la chambre bi ñuy wax chambre d'accusation ci lañ war a caytu mbiru El Hadj Malick ka ko war a amal mooy président booba tribunal léegi bu fekkee président tribunal boobu dafa topp càkkuteefu procureur maanaam lii di bëgg-bëggam kon mbokk yi jàppale ne El Hadj Malick kon dafay dem li nga xamante ne nii mooy kaso loolu lañ leen indi loon tey di leen jaajëfal bu baax di ñëwaat ak yéen di leen jox dig daje ci yeneen i jàngat ak yeneen i xibaar jërë ngeen jëf